tey ci seen scandale di jour ñu dem déglu video bi ñëwaat. bu jëm ci Aïssatou Diop Fall. ak mhm. ki nga xamante ne moom mooy Azoura Fall. mu mel ni dafa dafa bind plainte contre lui. dafa Aïssatou Diop Fall def na plainte contre Azoura Fall. parce que Azoura Fall da ko menacé de mort moom ak Adama Fall moom Azoura Fall nag loolu moom Aïssatou Diop Fall. neena suba ak jam dina nga yobbu li nga xamne moy plantam ki nga xamne moy asrafal ndax daf ko menacé de mort kon lolu information la bo xamne ne nañu fi legi mom suba ak jàmm danañ ko porter plainte ci trou Aïssatou Diop Fall moom Aïssatou Diop Fall mooy porter plainte asrafal ndax daf ko menacé de mort mom ak Adama Fall mom nga xamne ni moy asrafal euh, situation bobu mun nga ñëwaat tuti ci li xew sen diggante. waaw xam naa rek ak liggéey beeg ni Aïssatou Diop Fall taxawee parce que ku nekk nag xam na ne tamit réew mi ni ñu fiy doxee mooy Aïssatou Diop Fall nit la koy joxe xalaatam di joxe gis-gisam euh, nit la koo xam ne tamit dafa dafa dëggu ci li mu nekk man loolu laa ko mën a jàppee parce que Aïssatou Diop Fall nekk na koo xam ne nii fii ci senegal kenn dootu ko laajte ndax dëggu gi mu dëggu ak tamit bëgg gu mu bëgg liggéeyam te euh, yaakaar naa ne daal euh, gisaguma ko ci wàllu liggéeyam lu mu def lu jar waxtu wi wala loo xam ne da koo wax lu jar ñu koy porter plainte lu jar mu ñu koy menacé :fra de :fra parce que :fra Aïssatou Diop Fall nit la koo xam ne nii vraiment :fra tey jii ku nekk gis na taxawaayam ci dëkk bi eh, gis nañ ne jigéen la joo xam ne ni mm, Aïssatou Diop Fall eh, góor la parce que lan mooy fi ñu waroon a gis góor ñi foofu la taxawee Aïssatou Diop Fall def na plainte :fra contre :fra Azoura parce que da ko def menace :fra de :fra mort nañ bàyyi menaces de :fra yi nañ arrêté te xam ne loi bi ñun ñëkk ñun ñëpp ci bokk yem ñun ñëpp ci bokk yem ku fi tooñul buñ la fa yóbboon fa doo deux minutes doo ko fa def ndax tooñoo xam nga luwaa kañ lay kañ la soxla kiy tooñ ki ko manqué de respect ak ki xamul moom mooy kan wax dëgg fa yàlla nit ki loo ko bañ bañ bañ bañ bañ boo ko yóbbee ci yoon te xola yoon toppewu ko dara munoo am ci moom ndam yoral say million yoral sa pouvoir bu dul jeex mënta nekk suñu ay homme de tout suñu luwaa ñun dañ koo wóolu nekkalu fi ma sàmba nekkalu fi ma dem ma ndax nag ah ñi fi nekkoon doon jàpp Sonko barki demoo Ndiaye tey bu Sonko di dem ñoom ñooy assurer sa sécurité ñi nga xam ne dañoo jàppoon ni ce sont des vendus Macky Sall da leen corrompre tey ñoom ñoo nekk ci ginnaaw ba Bassirou Diomaye Faye kon nag nga xam ne ñi fi nekk dañuy dem bàyyi fi ñi fi nekk. Maintenant, nos forces de l'ordre restent les hommes partent mais les constitutions ça reste Si nous avons une constitution bougez le maître Je Macky ba muy dem yóbbaalewul palais ba da koo woon gannaaw te tey bu amul invitation une invitation. Faye tànkam une du tege palais bu amul audience ak Bassirou Diomaye Nous nanak nak président 100 ans fille Sénégal du dugg palais du fa dugg ndax paré na ci donc ñi daan saga pale ba di une constitution tay ñom la yalla tek ci nguur gi parce que Ousmane Sonko a toujours dit la justice de Macky Sall alors que la justice de Macky n'existe pas la justice de Bassir Diomaye Fay n'existe pas la justice de Sonko n'existe pas la justice du peuple mo fi def lo wara def ñu de la nga dem defo li nga def ñu la lii laa wax man il faut qu'on arrête les menaces ñoom nag jël nañu seen seen engagement ñu ne ñoom dañuy dañuy tere kuy saaga ay ak ma cee kontaan bu boobaa naa dootul dégg saaga ndey léeg-léeg nga digg ñu saaga la saaga maanaam saaga sa yaay saaga boo xam ne dangay ngay lire commentaire bi rek jooy métti te demande ces personnes ndax ñoom du jigéen moo leen sukk jur ndax ñoom di su biir jigéen lañ nekkoon pendant neuf mois benn fan xawaree ko jigéen kooku ndax du jigéen moo toog jox weenam ngay xëcc di mattale muy saf mu lay bàyyi nga lekk c'est même mêmes femmes qu'on insulte midi matin soir sur nos réseaux sociaux sur nos doo dégg ko rarement ngay dégg ñu saaga bàyyi ndey ndey ndey ndey te ndey a gën a sonn am na ñoo xam ne xamuñu seen baay seen baay xolal bi bis bi mu ëmbalee seen ndey la la tàggaloo ak ak ñoom tewul ndey dafa jur fu la war a julee yar la ba nga màgg ndey boobu ti te permet fonk ko saaga ndeyu keneen ñoom nag dem nañ jël nañ seen kii ne dañ koy dindi alhamdulillahi rabbil alamin ndax ku doon saaga bu nee dematul bay saagaatul du saagati kon alhamdulilah la ñuy wax sant yàlla